mbokk internetu su ñu ngi leen di nuyu euh, di wax nag tey ci kaawu maman Koundoul di nekk jigéen boo xamante ne ngir rek euh, divorcer ak jëkkëram dafa tëral rek euh, ay plan benn bi mooy wàllub ëmb bi ñaar bi mooy wàllub kidnapping bi te loolu lépp dara du ci dëgg daf ko defoon rek ngir mën a tàqali ko ak jëkkëram SeneNews nag daal di poser question bi ay jigéen ndax ngir génn ci néegu sëy jar na ngay teg ay histoire wala sax ngay wax ay yoo xamante ne. amul ben yoon ñu tok ak kenn ci suñu yaay ba ba ñu baxé ci bi ba pare euh, nga wax ñu lan nga xalaat ci bile histoire. de sa jamono bi ni neexul dafa deug dëgër bo xamné ne neexul nit booy def def lu rafet booy wax wax lu rafet mo am solo fen jarul ci parce que bo feñé bu yagge da ngay feñ sa neeg sa boko tejé nga def taatu neen bu suba day genn do xam ku lay def lu bax dafa bax wax lu baax dafa baax jamono bi daa ci mu nekk nii moom ci jafe-jafe lañ nekk. waaw li nga wax daanaka am ne parce que léegi dama ni seetuñu dañuy dañuy seeti waaw buñ daa seey bu njëkk la ñu damay dem damay dem daal seey ca kër ga. lu ma fa tamit ànd ak loolu ne fa ba am fa doom yoo xam ne ñëpp dañ koy dañ koy tudd léegi nag seeyatuñu dañuy seeti seeti mooy demee bu neexee nga toog bu neexul nga dem sa yoon. moo tax te bu neexul nag nga créé aussi problème comme ni nga ko waxee nii aw lay. dal ciy génn góor yi tamit yoratuñu ndax buñ doon yor ñoom tamit da ngay yem ci kenn waaye bëgg yor jabar ku leen waxool ko du sotti loolu tam mi ngi ci sëy daal amatul léegi léegi daal def la neex moo fi am sama doom waaw. man de si sama sama sama xalaatu bopp man sama mbokk bu ko def ma bala xaw ma na dëgg la xaw ma du dëgg ndaxte moom jàkkaarloo wuñu taxawuñu xaw ma nag lu muy dund ci néegu sëyam waaye yenn jaru ko. boo demee ba nit ki nga ne bëgg nga ko ba ngeen di sëy soo demee ba gisatoo ci la la doy na génn gi rafet ndaxte suba nettali bi la na lépp rafet yenn inventation yeeg di lal plan naan nangam ak nangam yooyu yëpp da koo jarul ndaxte tey ji bu deewee ci mbedd bi moom mooy perte su ko dara fekkoon ci biiram googu xaw ma ëmm naam ëmmul bu doon dara da ko cee fekkoon mu daana fa dee fa léegi est-ce que jëkkër jee koy yëg jëkkër benn weer ñaari weer mu takk xale bu ndaw ndaxte xale yaa ngi fii di baax. ah mais dara nit ñi bokkuñu xel rek ku nekk sa xalaat mën naa fen pour ma rëcc ci beneen côté bi fekk maa ngi lor sama bopp ah ma ne ah man tey rëcc naa fekk rëccoo rek sa beneen tànk baa ngi ci jafe-jafe ji benn baa ngi ci bànneex mais luy ñëw après yow yaa fii mucc. loolu yaa fi mujj. xaritoo tam jarul la euh, ñuy waxante dëgg ndax boo gisee sa xarit bëgg a tas sëyam wala mu lay waxal yeneen plan nga gis ni lii euh, daanaka nii ni duñu ci ànd est-ce que balaa mu lay lor yow doo ko njëkk wax dëgg. kaay ma wax la man nag man man sama bopp man aw ma xarit amoon naa ko waaye bu ma gisee dara doyu ma damaa bàyyi xarit ndaxte xaritu tey jii duñu xarit ay àndandoo lañ te bëgguñu yow su fekkee man mii tey jii yow nga nekk sama xarit man sama situation baax. ma am lépp sama jëkkër bëgg ma yow du la neex malgré que danga naan danga naan yow sama xarit nga mais du dëgg ci yow gis nga xarit bu dëgg dëgg dëgg dëgg dañ koy compter bëreetul am na nag am na weddiwu ma ko de mais bëreetul xarit bëreetul. loolu lépp ci sa xam-xam lan moo ko waral. Euh, li ko waral ñàkk dellu ci yàlla la parce que sëy dafa nekk loo xam ne yàlla moo ko digle. xam nga lii fi nii yàlla moo ko digle parce que loo ci mën a am rek grade grade bu nit am ci àddina rek ci sëy la ko jëlee xool ci sëñ ak euh, maam Jaara maam Jaara bu see mi yaayam liggéeyee tax mu am lu mu am maam Fawal Wele Seydi tax maam Fall jànqal noonu ci sëy di Baye Niass kon nag xam nga liggéey dafa yàgg ci Mariama la tàmbalee Mariama mu njëkk ma dafa nangoo maanaam jox boppam yàlla niko ko ngi xaar fi duma sax bëgguma sax xam góor ndax jaamu yàlla rek yàlla niko na la yoni sama esprit sama xalaat xolal lool rek mu am insa muy fajj aajo yeb ba ci yonent sallallahu alayhi wasallam sallam nit ñi nag ñoo gisatul legi xam nga matériel mo yàq dëkk bi bu ñëk li ndax daa xëy ngir yàlla am fa lool legi nak li lay sëy ngir am am am rek boo amatul dem lool moko tax leng loolu waaw loolu moom dëgg la sey famille moom musuma ko def amuma ko waaye man ñaanuma yàlla sama doom sëy si ndaxte man sama doom mag sey famille lay def ndaxte lam ciy dund muy ñëw di ma ko wax xam naa neexul ndaxte tey jii dañuy dem tey ba bëgg laa takkalaat keneen te bu boobaa dañ naan ci famille bi nga doo ñeme génn doo ñeme puus sëy famille moom wax dëgg yàlla man moom man sama bopp samay doom duñ ci dugg te man personne su ma amul woon jëkkër sax duma ci dugg ndaxte sëy famille bu sëy ba yàqoo rek famille bi tas na ndaxte famille bu boobaa ay concurrence la ñuy doonante kii day dajeeg moromam kii dajeeg moom ñu bokk benn biir bokk benn famille sëy ba am problème famille ba commencé yàqu man nag su ma sañoon sëy famille yooyu dañ koy bàyyi ku góor ki kam bëgg na ko dem takki ku jigéen ki kam bëgg nañ ko ko may mu sëy malgré que nag sëy famille ñu bëri dañ naa mënul ñàq dërëm bi du génn gaal mais loolu ay wax la gis nga dërëm bi du génn gaal ay wax la di nga daje koo xam ne jàmbur la ci biti yéen ñaa ngeen ñëw toog di sëy seen dërëm gën a jur ki nga xam ne sëyu famille la sëyu famille ci boppam man bëgguma ko man sama bopp xaw ma na xalaat ni di mais man bëgguma ko. maa ngi leen di ñaanal parce que baatin la cee lalu ndax euh, sunu sëriñ daan dëkk dafa bari seytaane te seytaane moo yàq sëy lu nit nag ginne lay doon lu ma leen di ñaanal d'abord yàlla aar leen sàmm leen ba ñu nangoo dugg ci biir sëy toog fa li ma leen di conseillé muñ. àddina muñ rek lu nit am na koo muñ loo fa muñul di la fa fekk muy man mi ak keneen loo fa muñ rek dina la fekk sëy doom lañ fay wul mais du alal ñoom sëñ Touba sëy Daji Malick sëy ci loolu lañ dëgg waaye seen yaay dañ ko faa muñ lu leen dëgg laa mooy nañ muñ xam ni tamit góor bu amul muñal ko bu amee tam muñal ko ndax xëy na jikko ja du mel na nga na nga bëgg waaye muñal rek ba am lu baax dégg nga. man xam nga lu may conseiller jigéen ñi man su ma sañoon jigéen ñi. ñu mel ni am na femme boo xam ne dama koy suivre ci TikTok bi femme boobu dama ko naw bu baax a baax a baax xaw ma nag mën naa tudd turam wala mënumaa tudd turam mais femme bu mel ni jajaa man su ma sañul jigéen ñëpp roy ci moom xaritoog sa jëkkër ànd ak sa jëkkër yem ci sa jëkkër bañ am xarit bañ am àndandoo di kaf ak sa jëkkër di reetaan ak sa jëkkër di defanteeg léegi sa jëkkër luñ la kenn du la xamal ci biti lépp mu yem sa biir néeg ak sa jëkkër man de man dama ko naw wax dëgg yàlla man dama ko naw ba ci kanam yàlla ndaxte man ni ma koy suivee muy dund noonu bu fekkee noonu lay dundee ci bii néegu sëyam man da ñaan naa yàlla man sama doom tey ji ma ko doon mayee ji sëy dama naan ko royal ci jajaa dama ci jajaa mu yedd la man moom femme bu ma naw la femme bu ma respecté la ak jabaru Wally Seck gisoo ko mu am xarit gisoo ko mu am àndandoo demul dikkul kenn dégg ko ci coow gis nga xarit bu bëri chaque jour ñu dégg la ci coow yaa waxoon kese nag mooy xarit waaye boo melee ne man mii de moom aw ma xarit de man daal dina am àndandoo ñuy dem ak a ñëw kafre waaye lu ci ëpp fii non déedéet doo ko xam